bakkan ak àdduna rekk wër safara de yàlla la mu yor njaayam nof lay jund ko jëf rekk lay may mbiram billaahi mooy njëgam waaye bakkan ak àdduna rekk wër safara de yàlla la mu yor njaayam nof lay jund ko jëf rekk lay may mbiram billaahi mooy njëgam bakkan ak àdduna rekk wër safara laay jëndu ko jëf rekk may mbiram billaahi rekk wër safara nde yàlla la mu yor njaayam noof lay may mbiram billaahi mooy jëf rekk lay may mbiram mooy njëgam waaye bakkan ak àdduna rekk wër safara nde yàlla la mu yor ko jëf rekk may mbiram billaahi mooy njëgam